ce Seneinfo International Seneinfo point net euh, dale nag jàmm ci seen tënku xibaar euh, mercredi 29 euh, novembre 2023 dañ koy njëkkee rek ci rabatdala bi nga xamante ne avocat Ousmane Sonko yi laaj na nañu ko ndiki démb après bi nga xamante ne cour de cour suprême jël na public jël na dogal casser décision bi nga xamante ne tribunal de Ziguinchor waxoon na ko ci Ousmane Sonko par rapport à sa réintégration dans les listes électorales donc ni ki démb avocat yi euh, def nañ benn demande d'arrêt ñu dem ci euh, marine nationale marine nationale dafa saisir euh, trois tonnes de cocaïne ni ki démb donc opération bi ñu ngi mu ngi déroulé en haute mer suñu sukkandikoo ci xibaar yi donc suñu sukkandikoo ci DIRPA DIRPA mooy direction de l'information et des relations publiques des armées moom nee na vraiment opération boobu ñu def saisir trois tonnes de cocaïne de drogue dure Euh, nekk na opération bu gën a mag euh, bu ñu def si euh, ñett juróomi at yi nga xamante ne moom la ñu passé ñu ñëw rek si Bassirou Diomaye fay de ni ki démb dañoo jàpp si quartier général am fële ca Pikine ñetti ñetti individu yoo xamante ne ñu ngi fi nekkoon foofu police yi jàpp leen tey jii nag nangu nañu caabi bi nga xamante ne moom moom moom moom la ñuy ubbee ak di tëjee foofu nga xamante ne moom mooy quartier général Bassirou Diomaye fay donc euh, ñi nga xamante ne mooy mooy ñoom jegeñaale euh, Bassirou Diomaye Faye ñu ngi tamit euh, tiitan si liste si liste parrainage yi nga xamante ne moom mu ngi foofu si quartier général boobu donc ñu wax rek si Ousmane Sonko Ousmane Sonko ki nga xamante ne moom mooy Déthié Fall dem na fekki ko seeti ko si prison Cap Manuel Déthié Fall nag ba mu génnee moom xam ne na ne ah, bu mu fekkee Ousmane Sonko neex na ko trop parce que gis na ne Ousmane Sonko dafa nekk koo xamante ne ku dal la te aussi mu ngi euh, mu ngi dund euh, épreuve bi nga xamante ne moom la nekkee mu ngi dund mu ngi koy dund dans la dignité donc loolu la vraiment rafetlu si li nga xamante ne visite bi nga xamante ne def na ko à la prison de Cap Manuel dem seeti ki nga ah, Sonko. ñu ñëw si euh, actualité internationale ki nga xamante ne moom mooy Niger ñoom ñu ngi dingat ci politique migratoire bi nga xamante ne def nañ ko ak Union européenne parce que nee euh, dafa am influence si boobu donc vraiment politique boobu influence boobu ñu am ñu am def dem na ba finalement bu yàggee dina mettre en cause les intérêts euh, des pays du Niger ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoo nekk pays yi nga xamante ne ñoo nekk Afrique. ñu ñëw si guerre Israël Hamas donc ñu wax solidarité bi nga xamante ne. Euh, ñu nekk ci diaspora émirats arabes unis euh, ñoom ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy def mooy palestiniens yi nga xamante ne ñoom ñu ngi dund fële ci Dubaï mooy émirats arabes unis ñoom ñu ngi vraiment euh, ñëwaat ci li nga xamante ne moom mooy guerre boobu am entre Israël ak Hamas. donc suñu sukkandikoo ci ay kàddu benn ndaw bu nekk foofu di liggéey si benn bureau bu tudd Nour Nour nee na moom dafa déplorer li nga xamante ne moom mooy xew fale sa. Gaza nee na moom honnêtement moom munatul liggéey mënatul concentré wu chaque jour mu ngi xool actualité mu ngi xool lan mooy xew si dëkkam mu ngi xool aussi lan moo xew ak li nga xam ñi nga xam ne ñoom leen di faat foofu euh, donc si dëkkam danaan moom à partir de Dubaï fu mu nekk mënatul concentré wu si liggéeyam noonu la nur xamle euh, foofu mu nekk si Dubaï euh, Émirats arabes unis ñëw rek si actualité sport euh, ki nga xamante ne mooy Ligue 1 de football euh, euh, sénégalais supporteru AS Pikine yi rek nee nañ ñoom dootuñu dem si stade Iba Mar Diop ndax ñoom dañuy dund foofu ay violence taa yu ñu demee pour supporter seen équipe équipe bi nga xamante ne moom mooy AS Pikine dañ fay rencontrer ay difficultés ay violence di leen di door di leen mëccatal foofu donc léegi dañoo décider ne bu équipe bi buy jouet buy jouet foofu bu naree di dem jouer fële fi nga xamante ne mooy stade Iba Mar Diop ñoom toog euh, suivre match bi ah distance loolu la comité bi euh, xamle donc ñu jeexalee rek ci euh, coupe du monde U17 xam ngeen ne ni ki démb Mali mu ngi doon rencontrer France donc France nag door na ki nga xam équipe bi nga xamante ne mooy équipe bu Mali Allemagne moom moom la war a rencontrer ci finale bi nga xamante ne mooy finale coupe du monde u donc Mali donc. Allemagne ak France ñoo nar a jonganteel si final bi nga xamante ne mooy final coupe euh, du monde euh, ñi nga xamante si ndaw yi nga xamante ni amaguñu 17 euh, ans donc ñu leen jaajëfal bu baax a baax si seen teewlu te li leen ñaanal kendal jàmm si Sene Info International ak Sene Info point net.